فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله والحمد لله القائل في محكم تنزيله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرات السادة إخواني في الله لله وإلى الله نيابة عن الخليفة السيد أبو بكر محمد المنصور أخيه الحاج مالك سي نيابة عنهم أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi ginnaaw bu ñu musloo ci bakkan ak seytaan yal nañ ci yàlla boole musal ñun ñëpp ñu ubbee wax ji rek ci turu borom bu tedd bi tamoo di bismillahi dellu di sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ni moo ñu bind bokk ñoo ñu bokk bind ñun ñëpp tëral nak dund ak dem ki tëral dund ak dem nak lu ko neex mu def ci jaamam yi sëñ babakar nak wax ma ni naa ko wutu wutu njabot gi wutu mbokki julit yep ci li nga xamni dal na len ci nattu bu yàlla andi te modi sunu mbokk yo xam dañuy def accident fële ca dëkk ba fële ca Kaffrine diggante kafrin ak ñibi fofu lañ ko défé sunu borom nattu ci nak indi ci nattu bu mat sëkk ñeen fukki nit yo xamni ñak nañ ci seen bakkan amna ci juróom-ñaar fukki yo xamni sam son nañu lool waye loolu yëpp dañuy wax ni ta'addadatil asbab waye wal maut wahidu sabab yi mo bari rek waye dem bu jotee rek in fokk dem am loolu nak machiatullahi subhanahu wa taala la sëñ babakar na di ci jaale nak mbokki julit jullit rawati na mbokki ñi nga xamni ne ñoo dem mu wuutu ci rakam wuutu ci khalifa yëpp wuutu ci julit yëpp pour tagene len ñoo ñu nga faato ci boori kafrin di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mi len jël te bindon len yàlla len yàlla tero yërmande ak njegal ci barke sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam serigne bi daal nga koy jaale yéen ñep di ànd ak ñun ñep di ko metitlu waye ndogalu yàlla nak lo xamni li lii kullukum ñun ñëpp ci la ñu jëm yàlla na yéex la ñuy wax rek waaye yàlla mi leen jëlal yal na leen teerul boppam te jéggal leen lu ñu mës a def ñi ci des nag te nekk ci métit yal na leen yàlla may wér ñu ngi koy jaale bokki jullit yëpp mu ngi koy jaale bokki senegal gépp yàlla na yàlla yërmaleem ci barke rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu li ñu wax léegi ndogalu borom bi la waaye nag du tee nag lu ñu mën ci moytu ak daw ndànk Niko Borga ga dan waxe rek bu ne yang nga ni yoll way bu ne tàcc nga ni tek waaw ndax mbir yi fa tabarakallah buñ ci buñ ci dalé def niñ ko waree rek ci dal di baye xel ni ay nit lañuy dajel ay baye ma baye ma sax dañuy bayi mom ci mbeddu mi nonu ñuy ak baye ma ñoo dal ci kawam rawatina nak lu démé ni ki nit waaye loolu yëpp yàkkamti aduna rek koy def bu ko défé nak sëriñ bi dal mu ngi ñaan ak képp ko xamni ki rek yor nga luy daw nga tee ci di ci def ndànk ci biir ak ci biti ba nga xam ni lu ci bare bari danañ ci mën a mucc waaw nag moytu nag moom la yàlla diggale ñu moytu bu baax a baax waaye kenn du ñëw ba ci biiri nit di fa daw xel yoo xam ni yi fa tabaarakallaahu kon daal ñu ngi ñaanaat safoor yëpp di leen digal ni yàlla wax rek bu ne bu ne bu ne daal nga ni tekk bu ne yàng nga ni yoll loolu moo gën ndax it bakkan dafa di lu foor bakkan dafa di lu foor bakkan dafa di lu foor kon daal sëriñ bi mu ngi ñaan bépp safoor ak voiture euh, boo mën a yor ñu ñëpp ñu bokk di ànd di dal di daw ndànk di bañ a yàkkamti ndax dañuy wax ni yàkkamti ceeru seytaane la alajalatu min alcheytaani wa taanni min arrahmaani waaw yàkkamti ceeru seytaane la daw ci di njëkkante wàllu wërsëgit ba loolu dal la ci leneen la kon ñu ngi ñaan daal bépp safoor bu yor oto ak loo mën a wala boog loo mën a dawal boo nekkee ci mbedd mi daal sëriñ bi nee na mu ngi ñaan ñëpp ñu bàyyiwaat xel seen bopp ndax ndaxte lii ñun ñëpp ci la jëm kon nag ñu bàyyi xel ba bu ñu gisatee nit ñu mën a teggi suñu tànk ba nga xam ni dara du am loolu daal la sëriñ bi doon ñaan jullit yëpp moom la ñuy ñaan di masawu nag ñi nga xam ne ñoo dem la ci turu sëriñ bi ko defee nag yal yàlla def tawfiq di jaale président Macky Sall mi nga xam ni moom la yàlla dénk réew mi ndax moom la yàlla di laaj ëllëg lépp lu xew ci réew mi diiru lim fi nekk boo demee ca euh, ci euh, euh, fa tabarakallahu mu ngi ci suratu nisa li ñuy tuddee amaana al amaana boo ko boo buñ la denkee amaana il faut nga sàmm sàmm sàmm li la yàlla dénk sàmm li la yàlla dénk nag mooy nga weeyee toujours ci lii xew ci biir dëkk bi ci tali bi ak ci lu dul tali bi loolu moom ëllëg si biir yàlla na yéex buñ fa demee yow la ko yàlla di laaj kon nag ñu ngi lay ñaan nga ñaanaat chauffeur yi ñaanaat euh, alkaati yi nekk ci talibeeg yëpp ñoom ñëpp ñu wàññi xel yi ci biir dëkk bi wàññi xel yi ci biir àll bi itam ndax di nga dajeeg sax lu dul nit muy bàyyi ma nga dal ci kawam bu boobaa it xàq lay doon yooyu yëpp buñ fi toogoon di ko wax bu bër seet du dara duñ ci mën a mucc te yàlla loo loo ko rayal rek mu laaj la ko bu defee nag ñu bàyyi ci xel bu baax a baax والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية